أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak yéen ci suratul baqara di jël tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala aaya 25 ñaar fukk ak juróom aaya bi nekk sunu kanam li mu ñuy jàngal mooy ngëneelu ngëm yàlla tabaraka wa taala ak jëf ju baax fadlul iman wal amalu salih is bihima kaana naimu lmazkuru mazkur fi l aaya mu ne aaya baa ngi jàngal ngëneelu ngëm yàlla tabaraka wa taala ak jëf ju baax ndax ci ñaar yooyu ngëm yàlla ak jëf ju baax ci la xéewalu yàlla tabaraka wa taala feeñee ak yërmandeem ñaareel bi ñuy jële ci aaya bi mooy taswiqul muminin ila daari salaam aaya bi dafa ñëw di xemmeem loo way gëm yàlla yi ñi gëm yàlla nekk ay jullit aaya bi daa ñëw di leen xemmem loo kër googu nga xam ne mooy kërug jàmm te mooy aljanna wa ma fiha min an naim ak li ci nekk ci ay xéewal xéewal yoo xam ne muqiim xéewal yu sax dàq la nga xam ne dara du ci jeex li yazdaadu raxba ngir ñoom way gëm yàlla yi ñu yokk seen góorgóorlu ak seen cawarte buñ doon jaamu yàlla tabaraka wa taala ñu bañ a yokkat waaye aaya bi daa ñëw di leen bégal pour ñu góorgóorlu wa amilan laha mu yëgal leen ne aljanna am na waaye kat daaro amal comme da ngeen li ñëw fi di liggéey foog ngeen góorgóorlu bu baax pour ngeen mën a dugg aljanna aljanna lu ñuy liggéeyal yàlla la bu kenn yaakaar na ci ñun da ngay toog ba mu neex la rek nga dem daagu rek daal di dugg laa budda bil amal ku bëgg dugg aljanna da ngay liggéey yàlla bi muy wax waa aljanna dugg na aljanna ñoom ñëpp da ngay gis dafa indi sabab bi bi lay wax jël leen ñaari aaya di nga gis ñaari aaya yooyu yëpp yàlla bi muy wax waa aljanna dugg nañ aljanna dafa wax li tax ñu dugg aljanna bokk na ci benn aay dafa ne bi ma aslaftum bi ma aslaftum fil ayaamil xaaliya lii si ngeen ko amee tey bi sabab baa ngoog mooy yéen yéen a ko liggéey yéen ci ay bis yu passé bi ma aslaftum fil ayaamil xaaliya yéen yéen a ko liggéeyoon démb yaa ayyuha alladina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li xadin gis nga eh yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla kenn ku nekk li ngay def bàyyi ci xel ëllëg ndax dañ lay fay bàyyil xel ëllëg ñun nag bokk na ci li tax duñ sawar ci jaamu yàlla mooy xalaatuñu ëllëg parce que jàpp nañ ne àjjana moom ñëpp dañuy dugg loolu ngay dégg ñun àjjana ah dañuy dugg yàlla dafa soxarul gaa yi dañuy wax rek yàlla du lakk kenn xam nga ne yàlla du bind nit ba pare di ko lakk ñaata yoon ngay dégg loolu alxuraan waxu yàlla la yàlla moo ne la am la anna jahannama min al jinnati wan naas safara dinaa ko feesal del del del del del del ba mu fees ak ay nit ak ay jinne loolu alxuraan la bal sax yàlla da ne safara bu ma ko feesalee ba mu fees ba rokkos ko dama koy laaj safara di ma tontu yawma naqulu li jahannama hal imtalaati wa taqulu hal min mazid safara naan yàlla ndax am nga ñoo may dolli ma lakk leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day rokkos safara ba mu fees ba mu jal mu teg ci tànkam dëgg ko moom yàlla mu daal di digg ba safara naan qattun qattun doy na doy na doy na allahu akbar kon aljanna kërug liggéey la mbokk yi ku bëgg dugg aljanna na liggéey ak dunia daaru amal wal axira daaru sawaab yàlla tabaraka wa taala ci aaya bi ñu war a jël xemmeem loo na jaamu yàlla yi pour ñu góorgóorlu ñu liggéey bi fi'lil xayraat nag wa tankil munkaraat aljana lan lañ koy liggéeyale buñ yaakaar ne liggéey boo liggéey rek da lay dugal aljana de buñ nee liggéey aussi liggéey bi dañ koy segg dañ koy tame dañ koy lay ba ñu xam liggéey bi ndax liggéey bi la yàlla sant la mu doog a nga doog a dugul loolu tamit bu ñu leen ci doon jox misaal tey bu weer deewee nit ñi war a dem fayeku ci benn waaye ñëw na rek nee na man rato naa koñ bi yëpp rato naa ko ba mu set lakk naa mbalin mi weeru yàlla may rato koñ bi di lakk mbalin mi weeru yàlla ba weer bi jee dee mu ñëw ne sama carte d'identité ngi nii fay leen ma parce que liggéey naa kooku suñ la doon laaj liggéey na wala liggéeyul ah liggéey na liggéey na kay liggéey na bu baax mais est-ce que dina fayeeku du fayeeku lu tax du fayeeku parce que li mu liggéey kenn sant ko ko waaw moo tax lu nit ñi war a bàyyi xel la beneen misaal boo amoon yére mbasin nga yóbbu ko ci tailleur nga ne ko ñawal ma ko grand boubou ak chemise ak tubéy mu dem jël mbasin bi yëpp ñaw ko caaya ñaw na ko wala ñaw ko ñaw na ko est-ce que boo ñëwee yow mi moom yëre bi di nga ko fay doo ko fay lu tax doo ko fay parce que li nga ko woon defu ko c'est simple da nga naan ko du ma la fay ba pare da nga may fay sama tisi et puis lii santuma lu mu ne non lii moo gën a rafet loo koy wax lii moo gën a baax lii moo xew ci jamono da nga naan ko xoolal sama yoon nekku ci doo du ma la fay te da nga may fay sama tisi moo tax looy liggéey na fekk yàlla santaane ko lépp lu yàlla santaane ne def leen yónni na yonente bi mu jàngale nan lañ koy defee kon jarul sonn ngay ci ngay sonn ci leneen ah tey nag li ñu sonal mooy du lu ñu yàlla sant te kër gi yàlla di wax muy aljanna yàlla da koy jaay nekkul kër gu ñuy maye de comme ni ngeen ko yaakaaree nii nu mu yombe nii nga xam ne Sénégal ku nekk yor nga sa caabi di xaar boo dee rek ubbi dugg ndax yomb guñ ko yombal yaa aljanna yàlla da koy jaay da koy jaay xam ngeen la la koy jaayee da ngay joxe sa alal ba mu jeex tak mbaa nga tuur sa deret anfusahum wa amwalahum inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul yàlla moo ko wax ñun waxuñu ko dañ koy dañ koy wax ku ngeen dégg xam ne alxuraan la yàlla moo ko wax yàlla mu ne aljanna dama koy jaay mayiwuma ko yonte bi muy firi aaya ba xam nga lu mu wax ala inna silata allahi xaaliya ala inna silata allahi xaaliya ala inna silata allahi aljanna marchandise su yàlla dafa seer marchandise su yàlla dafa seer sahaaba yi ne ko luy marchandise su yàlla mu ne mooy aljanna ku bëgg a dugg da ngay sonn ngay sonn sonn ci lan ci jaamu yàlla tabaraka wa taala boo deewee yàlla daal lay dugal aaya boobu la ñuy jël tey mbokk yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أذواج مطهرة وهم فيها خالدون borom bi tabaraka wa taala mu ne wa bashir bégalal bégalal bégalal kontaan lool bégal bégal kan mooy kan lañ koy defal mooy sa soppe moo lay bégloo moo lay woo téléphone bégal la wala mu ñëw sa kër bégal la wala ngeen daje ci mbedd mi mu bégal la soo déggee ñu ne bégalal mooy xabaar bu neex lan lay jox wa bashir at tabshir al ixbaar as saara mooy ñu wax la lu la neex kontaan lool wa zalika yakunu bil mahbubi lin nafs ndeysaan ku la bëgg sa soppe moo lay kontaan loo waaye yow yëg nga ne yow may nañ la visa da ngay kontaan wala da ngay mer yow yëg nga ne dañ lay takkal soxna yow yëg nga ne dañ lay maye dimanche yow yëg nga ne sa soxna am na doom ah da ngay kontaan yenn saa yi nga ñaanal waa ji yenn saa yi ah loolu mooy wa bashir bégalal yàlla moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne eh yow sama yonent yow muhammad bégalal kontaan lool ñan mu ne alladina amanu ñi gëm yàlla kontaan lool ñi gëm yàlla allahu akbar ñan ñooy ñi gëm yàlla ñan ñooy ñi gëm yàlla lan mooy gëm yàlla wa basir bégalal alladina ñi nga xam ne amanu ñoo gëm yàlla xawaidul iman jàng ngeen ko arkaanul iman kam sitta alimanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir lu ci tegu wal qadari xayrihi sharrihi iman nag fi ci gën a garaaw ci iman mooy al imaanu bil qadar mooy bu mujj bi dina yomb tamit nit ko man gëm naa yàlla gëm naa malaaka yi gëm naa yonent yi di gëm naa àllaaxira ñëpp gëm naa ko waaye xam nga coow li fa la nekk al imaanu bil qadar gëm dogal lan mooy dogal mooy lu dal sa kaw loolu nag day nekk yenn saa yi lu neex yenn saa yi mu nekk lu naqari bu dee lu neex moom c'est simple nga daal di daanu daal di gëm daal ne ah loolu de ma alhamdulilah rabbil alamin loolu de neex na torop parce que dafa neex bu nekkee lu naqari nag foofu la coow li nekk ñu ëpp ci ñun am nañ iman mais mënuñu gëm imaanu bil qadr xayrihi wa sharrihi foofu la ñu am problème dafa bokk ci ñun ñu wax ñu ne lépp lu nu dal ci sunu dund yàlla la neex moom lan nga war di wax kon chaque jour xasbuna allahu wa ni'mal wakil yonte bi yoroon na ñaari ñaan ci imaanu al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi yonte bi yoroon na ci ñaari ñaan su neexoon day wax alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu salihat maa ngi sant yàlla mi nga xam ne ci ay xéewalam la lépp lu baax di matee su naqaree mu ne alhamdulillah ala kulli xaal maa ngi sant yàlla ci bépp melo bépp xew-xew xoola ñaar yëpp day sant yàlla yonente bi saa sallam danaan contrôler iman benn bis jàkkaarloo na ak saxaaba yi ba caag rek mu ne leen amuminuuna antum ndax yéen gëm ngeen yàlla amuminuuna antum ndax yéen gëm ngeen ah Omar ne ko waaw waaw ya rasulallah gëm nañ de mu ne fa ma alaamati imaanikum lii wane ne yéen gëm ngeen yàlla Omar ne ko narda bil qada wa nashkuru fi raxa wa nasbiru alal bala narda bil qada lu yàlla teg sunu kaw dañ koy nangu duñ fi naan naan wëy mais il paraît déedéet da ngay gëm rek loolu la yàlla dogal qadrullah wa ma shaa faala waaw qadrullah wa ma shaa faala lu neex yàlla yàlla daf koy def lu yàlla tege sunu kaw dogal dañ koy nangu mu ne ñaareel bi mu ne wa nasbiru alal balaa buñ yàlla tegee balaa musiba ñu muñ duñ nekk di jàmbat di kapet xoolal tey àddina bi fu mu toll nit ñi ne dañu sonn di taal seeni bopp di taal sottee ko essence taal sa bopp démb am na ko def buntu pale encore deuxième personne ñëw taal boppam ba pare lu ci rus lu ñu naan taaliba dëgg la woon taali jullit xaqan la woon dëgg leen ko ci rajo bi tey jullit xaqan dina taal boppam ay na iman boo bu amee problème doo muñ ay na sabr lu tax yonente bi yàlla yàlla jox ñu sabr lu muy jëriñ muñ lu muy jëriñ bu fekkoon ne ku xiif taal boppam adduna bi jeex ne bu fekkoon ne ku liggéeyul taal boppam adduna bi jeex ne il faut nit ñi dellu seen xel nasbiru alal balaa buñ yàlla tegee balaa dañuy muñ waaw al balaa mooy bépp musiba balaa la jullit dafa war a jàng muñ ñetteel muy wane ne Omar lu mu tontu ne ñoom gëm nañ yàlla mu ne wa nashkuru firraxa dañuy sant yàlla bu neexee bu neexee du ñu sant yaayu kenn du ñu sant baayu kenn du ñu sant sunuy baay wala sunuy maam du ñu sant sunuy ndey fii da ngay dégg ñu ne ndey liggéeyu ndeyam la kii lii mu am xamoon na ne dina ko am parce que ndey ma ko liggéey ana ayna allah ana yàlla du ñu sant yàlla wa amma bi nicmati rabbika i'malu ala daawud shukran wa qalilum min ibadiya shakur gis nga yàlla sax xam na ko yàlla xam ne nit ñi duñ sant wa qalil wa qalilum min ibadiya shakur lu néew ci jaam yi ñooy sant yàlla kon ixwaan yi alquran su ngeen déggee wala ngeen gis ñuy sonn boroom xam-xam yi sonn di ko firi c'est parce que mooy defar xeet wi dara mun te defar xeet wi àddina ak alaaxira lu dul alquraanul karim lan moo tax saxaaba yi dëgëroon lu taxoon saxaaba yi mën a dékku adduna bi dékku yéeféer yi dékku ñépp ba mujj nekk ay sang alquraan la moo leen mayoon imaan ba wóolootuñu dara gëmatuñu dara lu dul yàlla tabaraka wa taala yàlla rek lañ gis gisuñu keneen yonent bi saa salaam mos na leen di seetlu ndax fuñ toll julli jot rek mu jël loxoom def nii baaree buntu jàkku bi am ñoo xam dañuy ñëw nii nii rek ah yonent moo baaree buntu bi de benn waaye moo ñëw rek ci ñoom ne grrr ne ko dindi loxo bi wala ñu dagg ko julli jot na dañuy julli mu ne alhamdulilah ñii macha allah gis nga kon yonent bi saa salaam dafa yar saxaaba yi ba yàlla rek lañ gëm yàlla yàlla yàlla yenn saa yi yonent bi day wax sa saxaaba yi wax yonent bi ne man la yàlla yónni man mii la yàlla yónni di leen wan ne yonent bi yar bi mu yar saxaaba yi da leen yar boo yàlla fees seen ci ñoom amul lu leneen lu yonent bi lépp lu mu jàngale ñu def ko lu mu wax ñu def su daan wax ak ñoom dañuy mel ne ay garab yoo xam ne ay picc mën nañ ci tag daal di naaw te duñu xam lu tagoon seen kaw duñ ko sax yëg ndax nuñ doon jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla yónni yonent bi ne ko wa bashir bégalal allazina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla moo tax il faut ñu jàng ngëm yàlla al iman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee màkk fukki at ak ñett la toog di jàngale iman fukki at ak ñett muy jàngale tawxid fukki at ak ñett iman rek lay jàngale loolu moo tax saxaaba yi bi ñu amee iman nga gis màkka mbooleem ñi nekkoon màkka nekk ay saxaaba biñ demee Medine gisoo ci naafiq naafiq yi ñu ngi woon Medine màkka xool leen lu saxaaba yi daj xool leen Bilaal bu ñu la tegaloon tey filmam nga gis tuuti ci liñ ko doon def duur yi ñu ko doon duur ñu tegal la Sumaya niñ ko reyee ñu wan la niñ reyee Yaasir ñu wan la niñ doon lakkee Xabbaab ñu wan la niñ doon bugale Zinniira Ammaar Mus'ab Suhaybu Ruumi ay xale yi ndaw xoola Mus'ab daan solu nu mu ko neexee daan kaalawu ba jigéen ñi di toppandoo nu muy kaalawoo xale yi jigéen yëpp bëggoon mu nekk seen jëkkër su su su sangu woon ba solu day jël butéel koloñ lat koloñ tuuroo su génnee seen bun kër xet bi day tasaaroo ci biir màkk ñu ne Mus'ab a ngi ñëw Mus'ab a ngi ñëw Mus'ab a ngi ñëw xam ngeen fu mu mujj day waddoo ay saako amatul lu mu sol day waddoo saako saako commerçant yi bu ñu jaayee ba pare saako yi lay jël waddoo biñ ko reyee uhut ñu gas pax bi ba dugal ko suñu xëccee yére bi tànk yi feeñ ñu xëcc ko ci kaw bopp bi tànk yi feeñ ñu xëcc ko ci tànk yi bopp bi feeñ yonent bi mu ne muur leen bopp bi eggali ñax tànk yi ndax amuñu luñ ko muuree yëkkati leen tànk muur leen bopp bi ngeen ngeen ngeen eggali ñax ak tànk yi xoola ñooñu fu ñu tolloon ci imaan moo tax yàlla yónni yonent bi ne ko wa bashir bégalal allazina amanu gaa yi gëm yàlla waaye wa amilu saalihaat taxaw ci farata ak naafila ci def lu baax al amalu saalih gis nga ñaari aaya yi chaque jour ñooy ànd al iman wal amalu saalih aaya boo gis yàlla di wax iman da nga ci gis wal amilu saalihaat wal asri inna al insana la fi xusr illa allazina amanu inna allazina amanu wa amilu saalihaat gis nga kaana lahum jannatul firdawsi nuzula inna allazina amanu wa amilu saalihaat lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar suratu buruj chaque jour al iman ak amal saalih ñooy ànd chaque jour benn bi du dem bàyyi beneen mënoo wax ne man damaa gëm yàlla ba pare te doo def lu baax da ngay dégg Sénégal moom li ñuy tiitaroo gënoo maa gëm yàlla mais bu desee ci amal nga gis waa ji toog fee yow lan ngay wan ne gëm nga yàlla gëm ku mu nekk ci yow da ngay jóg di jëf pour ñu xam ne yow gëm nga mës nga gis ku gëm yàlla ku dul dem jàkk julli ji te bëgg rey nit ñi ne gënu leen maa gëm ku gëm yàlla koo xam ne alxuraan mënu ci tus te bëgg a wax nit ñi ne gëm na yàlla jamais nga gis ko muy def lu baax ci lu bon rek la nekk mais chaque jour nee na man gëm naa yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy firi al iman dane maa waqara fi l qalb wa saddaqahu l amal al iman maa waqara fi l qalb day sax ci xol waaye wa saddaqahu l amal jëf moo koy dëggal gëm nga yàlla lu koy wane ah ngay vaye bien jàkk di def lu baax di wax lu baax di dugg ci lu baax di génn ci lu baax ñu xam ne kii gëm na yàlla li mu wax dëgg la léegi nag boo waxee ñu ne gënoo ñoo gëm dimbali ñu du yéen rek a gëm ñépp a gëm dëgg la ñépp a gëm waaye li ñu gëm moo bokkul loolu dëgg la li ñu gëm moo bokkul dafa am ñu gëm yàlla rek am ñu gëm yàlla ak ñaar ñooñu mënuñu nekk benn ñëpp a gëm amul ku gëmul ci kaw suuf mais liñ gëm moo wute am na ñu gëm yàlla wala am na ñu gëm biddéew yi inna allazina amanu wallazina haadu wan nasaara wassaabiin ñaata catégorie la yàlla lim ci aaya boobu te ñoo ñëpp bokkuñu lu ñu gëm inna allazina amanu mooy jullit yi wallazina haadu yahud yi wan nasaara chrétien yi wasaabiin mooy ñi daan jaamu biddéew yi wala animiste yi est-ce que ñii liñ gëm moo benn ñu moo nekk benn du benn julli dafa gëm ne yàlla kese yàlla amul doom nasaraan gëm ne yàlla am na jabar am doom est-ce que ñii duñ bokk benn la kii di wax qul huwa allahu ahad kii naan nii au nom du père et du fils de saint esprit du noonu du nii la ñuy def ah nii au nom du père et du fils et de saint esprit du noonu la ñuy def kii nag moom ne allahu ahad yàlla kenn la kii ne ñett la ñii est-ce que ñoom ñooyam kii ñëw ne useyru doomu yàlla la ñun ñi ay doomu yàlla la yahud la wa qaalatil yahud nahnu abnaullahi wa ahibaahu est-ce que kon ñetti ko religion benn lañ ñii ñëw ne yàlla amul ñun dañoo ate kon kay du benn ñépp a gëm dëgg la de mais li ñu gëm moo bokkul léegi nag ku bëgg a gëm yàlla da ngay ñëw nga gëmee yàlla ni yonent bi jàngalee ne nii la jullit di gëmee yàlla soo gëmee noonu yàlla yaa ngi bokk ci ñii yonent bi di bégal fii allazina amanu wa amilu salihat yonent bi lan lay bégal ñii allazina amanu wa amilu salihat lan la leen di bégal mooy ñii anna lahum ñeel na leen am nañ ëllëg yàlla dencal na leen yàlla dina leen fay ci imaan bi ñu amoon ak amalu saalix biñ doon def yàlla dencal na leen ci lan jannaat ay jardin ay aljanna yoo xam ne tajri day daw min taxtihaa ci suufam al anhaar ay dex ay kër yoo xam ne kër yi ci kaw la nekk di tëmb ci kaw ndox di daw loolu la leen yàlla dencal ñu gëm yàlla mbokk yi bu ñu yàlla dencaloon ay terrasse sax yoo xam ne du daw ci ndox war naa tax ñu góorgóorlu waxuma laa nag yàlla mu ne anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhaar waxul nahr de bi mu nekkee jannaat anhaar la nekk ay dex kon ñaata la ay kër yuy tëmb di ci ci ndox tey fii ku ëpp alal ci àdduna ku ëpp alal fan la fan la mébét am kër fan ah non fat ah très bien ci tefesu géej lay mébétu dëkk foo xam ne vague yi bu dóoree daal di laal miiru këram tëg sër tëg tëg tëg mu defar ko ba mu rafet fleur ay coco peinture yenn saa yi sax mu bàyyi géej gi di ñëw mu def piscine ci digg kër gi day mébét nag ñëpp ñëpp fu mu dégg ku sëqat mu ne kaay sama kër yow évité naa la visite aussi mi ma ngi fili iditi commencé dootul nangu sax wax olof dootul nangu dégg olof changé lépp bëgg dëkk bii def tefesu géej léegi kii moom tefes la bëgg a dëkk yàlla mu ne yow sa kër ci digg bi la nekk ci biir ndox mi kër gi tëmb jannaat tajri gis nga yàlla bi mu bëggee jommal balqiis la reine di Saba ki ñëwoon ci Souleymane tout bi ko yàlla bëggee jommal Souleymane da koo tabaxal benn château ci biir géej gi pour moo xam ne moom du tus parce que da doon jaay ne moom ponkal la moom ndaw soos bi ko Souleymane di jëli jinne di jëli trône bi Souleymane tabaxal na ko benn palais ci biir géej gi def ci ay verre vague yi bu ñëwee ci verre yi lay dóor muy gis bi mu ñëwee ba yegsi ci buntu palais bi pour mu dugg mu seen ndox mi dafa yëkkati sër yi dafa ne day tooy fekk ci ay verre ñu ne ko non non ci ay verre ngay traversé demal demal mu daal di daanu xam nga loolu xale yi naan seer loolu xale yi naan seer la kii seer la ah kii branché wul ñu teg ay verre mu ñëw di yëkkati ay sërum dafa ne day day tey day tooy xam nga loolu fan boo demee fan nga koy xam boo demee xajaratul boo demee safa ak marwa aji boo demee ba xeer bi fi muy jeexee dañ ko yat sotti fa benn liquide boo xam ne boo ñëwee da nga yaakaar ne da ngay tooy tam nga simmi say daal ne da ngay xuus ci ndox mi fekk xeeru kese la loolu lañ ko defaree mbokk yi wallahi yàlla dencal nañu loo xam ne biir aljanna buñ ko xamoon kon ñun ñëpp danañu lem basangi si lali sunu kër ñëw dëkk ci jàkka yi rek di julli ba dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dencal na leen aljanna fiha maa la aynun ra'at wala uznun sami'at wala xatara ala qalbi bashar yonent bi nee na yàlla dencal na leen loo xam ne bët musta tegu lu rafet lu mel noonu ci àdduna bu la neexee ñu ubbi la àdduna bi ñu jox la booyin nga wër ci àdduna bi yépp fu nekk nga dugg fa xool fu rafet boo paree buñ la ubbiloon benn fenêtre aljanna di nga di nga di nga xam ne mosoo gis lu rafet mosoo dégg lu mel noonu neex xoolal gaa yi mujjee dugg aljanna malaaka yi di leen yóbbu benn waa ji dafa ne tëll buntu àjjana rek daal di sujjóot ñu ne ko eh lan la mu ne sama borom laa gis malaaka bi ne ko ana mu ne nii mu ne lii fleur la fleur la du yàlla fleur la fleur la fleur la waa ji dafa sujjóot gis fleur mu sujjóot dafa ne boromam la gis malaaka bi téye ko ne ko non lii fleur la ñu yóbbu ko ba buntu këram mu sujjóot ñu ne ko lan la mu ne gis naa yàlla léegi mu ne ana mu ne mi ngi nii mu ne non kii kenn ci urul ay nii sa soxna yi la daf lay teerus moo tax yàlla mu ne wa ida raayta thamma raayta maasa naiman bu yemoon foofu doy na waaye mu ne wa mulkan kabira bu leen bàyyi xel ne man maay wax de kan may wax ku ngan sa lépp day ngande mais gis nga ko tuuti soo defee lu ngande da ngay da ngay woo ñëpp yàlla nag mooy wax mu ne wa ida raayta soo gisee aljanna foofu mu ne raayta nga gis naiman xéewal wa mulkan ak nguur goo xam ne nguur la wax de azim booy aljanna booy aljanna ñiy jox ñiy dox di joxe veer yi nit ñi naan lan la yàlla wax wa iza ra'aytahum hasibtahum lu'lu an mansur te booy lañ booy yi kon patron bi nu muy mel léegi nag foofu ñun yàlla dencal ñu ko ñu tëdd di nelaw te kër yi rek fii 15 sur 10 ku ko fi bëgg nooy def 15 sur 10 yéen ñu bëgg fi 15 sur 10 day dégg barça wala barsaq alal ju bari wala bàmmeel bu sori rek léeg-léeg nga dégg ko wax loolu alal ju bari wala bàmmeel bu sori pour rek këru àdduna 15 sur 10 boo xam ne léegi nga tabax ko après quelques jours nga dee ñu jaay ko léegi saa nga dégg ne noonu nañ jaay affaire bu ko parce que man dama bëgg a góob ma bëgg a sànni use ba laa bëgg a dem wala am na ñoo xam ne bala ñuy tekki seen baay dee est-ce que amul paa yu dee sax ndax seen doomay ñaan waaye yal na dee nag ba ñu jaay kër gi est-ce que amul sax ndax réew mi ni mel léegi dara wóoru fi c'est sûr que am na am na fi ñuy julli ñoo xam ne ah da ngay dégg ay jigéen yi façonné seen jëkkër ah man di dégg naa ko gisuma ko nag mi dégg naa ko di dëbbal seen i jëkkër ay xottu butéel di ko def ci ay soow di leen yóbbu ci ay sëriñ di leen xërëm pour ñu gaaw a dee ba ñu jot ci alal ji mën a féey mën a naaw loolu fu mu am kay kon buñ nee am na ñuy yal nañu yàlla musal mbokk yi kon ixwatal iman borom bi nee na na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bégal ñi gëm yàlla te taxaw ci jëf ju baax ne ëllëg am nañu ay kër yoo xam ne dina daw ci suufam ay ndox waaye xam nga lu yéeme mooy kullama ruziqu minha min thamaratin saa yoon malaaka yi indilee benn lekk kullama saa yoo xamante ne ruziqu indil nañ leen benn plat benn lekk ci wërsëg bi leen yàlla indil minha ci biir aljanna ñu fekk leen fa ne leen am benn fruit min samaratin fruit wala lu mën a doon ci wërsëg bu leen yàlla jox ceeb la ginaar la lu mën a doon firwi la qaalu nga dégg ñu ne hada alladi lii mooy li nga xam ne ruziq na moom la ñu indiloon li indiloon nañ ñu ko sànq wala moom la ñu indiloon ci àdduna lu tax gaa yi wax ne bi ñu leen joxee benn plat lekk leen wala am lii firwi la lekk leen ñu ne li indiloon nañ ñu ko sànq wala ñu indiloon nañ ñu ko démb ci àdduna est-ce que affaire bi dafa nuroo xam nga lu leen malaaka yi di wax yow jaamu yàlla bi yaa abdallah kul yow jaam yàlla bi lekkal dafa nuroo rek waaye cafka bi du benn lekk aljanna ak lekk àdduna du benn xam ngeen luy différence bi àdduna boo lekkee ba suur naan ba màndi 24 heures après boo nelawee ba yeewu tontuwu leen de lekk cere mbuum baase bu dëgër këj ba sa biir bi ne këj nga naan poti ndox tëdd ba 5 heures du matin luy xew ah wanag ngay dem ah aljanna nag amul wanag aljanna amul duus moo tax lekk yi du benn bii boo lekkee ba suur fa nga dem duus fee boo lekkee ba pare da nga koy ñaq mu génn gën a xeeñ parfum bu gën a neex parfum misk aljanna amul duus de aljanna duus amu fa duus moo tax bi gaa yi ne Isa yàlla la yaayam yàlla la yàlla moom nekk fa naan déedéet duñu yàlla dafa ne ñoom ñaar de kaana yaakulaani taam ñaar dañ doon lekk de kuy lekk di naan après kaana ñoom ñaar nekkoon nañ yaakulaani dañ daan lekk attaam ñam kuy lekk ñam boo lekk ba suur naan ba màndi luy xew moo tax gaa yi naan di man yàlla laa yow da ngay lekk yàlla du lekk moo tax gis nga ndeysaan fa buxital lesi kafar day dégg ñu ne diw yàlla la man yàlla laa man mii yàlla laa nga gis ko wax loolu yàlla laa xool leen ma ku ma gis-gis nga yàlla yàlla dina lekk boo lekkee reer dem reer sa cere basé bu suur naan sa ataaya jege sa soxna cinq heures nga jóg da ko ndax toilette bi am na ndox mu ne la déedéet nga ne ko defal ma ci ndox xam nga ne doo yàlla doo yàlla laay doo yàlla allahu akbar jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu sunu borom mooy sunu borom mooy yàlla wallaahi ndeysaan moo tax bi gaa yi di wax nga dégg alquran mu ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun o yàlla ni mu tagge boromam boppam subhana rabbika sa borom sell na rabbil izza mooy borom mag amma yasifun ci lii ñu koy melal yàlla jomb na lii la ilaha illa hu la taaxuzuhu sina wala nawm du gëmminti du nelaw lahu ma fi samawati wa ma fi l ard gis nga yàlla yàlla mbokk yi du gëmmintu du nelaw fa kullama xatara bi baalik fa allahu bi xilaafi zalik sa xel lépp lu mu xalaat ne yàlla nii la mel yàlla mu ngi ci ginnaaw loolu ñun waa jàkk ji yëpp ku nekk am nga nooy imaginer yàlla ñun ñëpp yàlla melul noonu ñun ñëpp nag te bokkuñu image xam ngeen lu tax laysa ka mislihi shay saxaaba yi amuñu woon problème yi ñu am nii tey ay damay gis yàlla di di di di non alxuraan lañ jàng ñu firi leen ko ñu dégg ko jeex na ñun lu nekk jàng nañ ko ci àdduna te dañoo am problème fajuwuñu ñu ngi ni feebar laysa ka mislihi shay loolu mooy lan nuróowuma ak dara soo déggee nuróowuma ak dara kon ëllëg bu nit ñooy naan la gis naa yàlla yàlla nee na man nuróowuma ak dara kii gis dara ba ne yàlla la dara la da nga ko gis wala yàlla nee na laysa ka mislihi shay ba pare beneen mu ne laa yudrikuhu l absar wa huwa laa yudrikuhu absar lu muy tekki bët du ma gis ba pare borom ñaari bët ñëw ne la gis naa yàlla nga ne ko est-ce que wax nga dëgg est-ce que di ko nuyu ñaar loxo nag kuy xam nga ne dos nga daal ne bët mënu maa gis waaw faar faar yi bu la oto bi dóoree faar yi jam la ko nii ngay def borom oto bi borom oto bi kii kii imbécile la nan yàlla jubal ba pare yow nga ne gis nga yàlla allahu akbar see nga xam nga lii bi ko waral mooy dañoo sori alxuraan boo nekkee ci lëndëm ñu indi la tors nga fay torse bi ne mun naa koo jéem demal di nga yegg de waaye boo yeggee da nga naan utal leen ma mungaas xam ngeen mungaas xale yi xamuñu mungaas mooy loolu ñuy dindee dëkk ay dëkk loolu ñu koy dindee foog nga uti ko lëndëm gi kenn du ko jéngu lëndëm gi yàlla daf ñu indi lumière lumière bi mooy lan quran nuurun ala nuur yàlla la ñu wax képp ko topp rek daal di jub alquran yàlla bi mu ko wàccee ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum mu nga kon su ko defee ñu xam ne yàlla lim ñu dencal ci aljanna ay kër la yoo xam ne kër yi dañuy daw dañuy tëmb ci ndox saa yu ñu leen indilee lekk ñu ne lii la ñu indiloon sànq wala démb kullama ruziqu minha min samara rizqan qaalu hadha alladi ruziqna min qablu lii la ñuy joxoon démb wala lii la ñuy joxoon sànq malaaka yi ne leen déedéet wa utu bihi mutashabiha dañ leen koo jox rek mu nuroo ci kaw mais lekk gi cafka bi du benn waaye du benn nuroowul dañ leen ko jox nag mais dafa nuroo mutashabi dafa nuroo aljanna daraam nuroowul ak lu àdduna daraam aljanna la fa nekk amul lenn lu ci nuroog àdduna dara lekk gi même bu nuroowee ci kaw yàlla nee na cafka gi dafa wuute ba pare li muy jeexital ci nit ki encore dafa wuute ndax waa aljanna lekk rek lañ fa am déedéet mu ne walahum am nañ fiiha ci biir aljanna azwaajun ay soxna mutaharatun yu laab yu set wicc yoo xam ne du ñu indisposé du ñu am doom mboole manqué manqué yi ak ayib ayib yi nekk ci jigéen yàlla nee na jigéen ñi aljanna amuñu ko ba pare jigéen ñi aljanna dañ leen a denc dañ leen a tëj du ñu génn xóorun maqsuratun fil xiyaam dañ leen a denc xam ngeen li tax ñu tuddee leen uurul ayn dañoo dijj bët yonente bi mu ngi wax ci ñoom ci seen taar ak seen rafetaay mu ne kenn ci ñoom bu jëloon baaraamam yëngal ko ci géej gi géej gi saf suukar ah da ngay gis fii kenn di ci ñun gis fi benn xale bu jigéen bu rafet rek nga dégg mu naan ko yow booy jar ngaa jaay jàkka ñi ah jar nga ñu jaay jàkka ji te ngaa bàyyi jàkka ji bañ koo jaay wala yow jar ngaa toog kii jaral na ma ma toog ci suñeel jaral na ma ma toog ci furno buy boy xoolal lool rek ci benn xale bu jigéen fii fii nga gis fii fii ci ñii nga xam ne yii nii yàlla wax ne ñoom amuñu ko ñoom am nañ ko nga dégg mu naan jar ngaa jaay jàkk jar ngaa toog ci signal jar ngaa toog ci fourneau buy boy jar nga toog ci gaz yow teggi cin bi toog ci gaz bi jar nga ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun man dama yaakaar ne yi li may dégg yéen du ngeen ko dégg ndax mbon gu nit ñi bon ku toog ci fourneau xaw ma di nga ko takk de waaye doo ko nettali waaw xaw ma dinañ la may ndaw si wala du la ko may waaye nag lu bon yàgg na xew ci àdduna de ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw qisasul anbiya xaw mu saalix lan moo leen indil mbon lan moo leen indil crime benn waaye moo na bon benn xale bu jigéen xale bu jigéen bi ne ko bala nga may bala ngay am ak man kii foog nga rey giléem gi giléem gi yàlla ne woon bu ko kenn rey mu dem rey ko si ngeen kon nga gis ne nit bëgg jigéen yàgg na koo dugal ci ay crime di ko def loo loo xam ne yàlla gërëmu ko waaw ndax jigéen dafa am doole waaw bëri na fi ku jàpp bëgg a jóg fajar dem jàkk un rek soxna si ne la rek nga tëddaat tekk dégg nga asalaatu xayru minan nawmi foo jëm ma bëggoon julli ji nga ne noonu waaye néeg bi dafa lëndëm rek nga ne xaaral ma julli fii xaaral ma julli fii bëri na gis nga nga tëddaat dama mu nekk musiba bu rëy kon ixwaan nañ yàlla jubal borom bi mu ne tabaraka wa taala wala hum am nañ fiha ci biir aljana azwaajun ay soxna mutaharatun yu laab wa hum fiha am nañ ci biir aljana wa hum ñoom jullit yi fiha ci biir aljana xaaliduna dañ fay sax éternellement bu ñu fa duggee dootuñu génn aljanna mooy kër goo xam ne olof yi bu ñu koy firi dañu ne aywa jeex na aywa jeex na amatul feebar amatul lépp luy dal doomu aadama ay coono ci àdduna ak noo ko xalaatee rek amul aljanna aljanna këru xéewal la këru noflaay moo tax ñu tudde ko daaru salaam këru këru jàmm daaru salaam wa ma fiha min naimin muqim ak la ca nekk ci ay kër ay xéewal yu dul jeex yàlla tabaraka wa taala tuddee aljanna tur yépp a neex turi aljanna daaru salaam firdaws ah ak lan daaru naim jannatul xuld aljanna juróom-ñaar la bi ci gën a neex mooy firdaws yonti yàlla muhammad alayhi salaatu salaam mu ne na ngeen ko ñaan yàlla yàlla may leen firdaws bu ngeen di ñaan yàlla yàlla may leen firdaws ndax moo ci gën a neex léeg-léeg nga dégg benn waaye bu amul imaan naan man kay man bu ma duggee ci suuf sax baax na déedéet loolu loolu idée arrêté la loolu idée arrêté la xoola saxaaba bi nga xam ne dafa jékki-jékki jeex tàkk di jeex jeex jeex mu toll di jeex mënu fexe ba am yaram ñu ne ko yow lan la mu toog ci kanamu yonent bi ñu ne ko lan moo la jot da ngaa jeex sedd sa yaram bi dee yow lan la mu ne yonent yow rek laa bëgg te xam naa ne man mii bu ma deewee même bu fekkee naa dugg àjjana man ak yow dund gisee yow fiir daw si nga jëm xam naa ne man suuf rek laay nekk te man yow rek laa bëgg a gis bis bu nekk dañ ne ko almaru ma aman ahabba ku bëgg nit rek bu dee nga nekk ak moom aaya bi daal di wàcc aaya bi lan la wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladina nama allahu alayhim min annabiyin wa siddiqin wa sohda wa xasuna ulaika almaru ma aman ahab waa ji kontaan féex c'est parce que lan xam na ne bis bu deewee dina góorgóorlu rey boppam ba dina nekk ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais loolu mo loolu loolu mooy mooy mooy jubluwaayu nit waaye man de man eh man kay appartement ci suuf doy na man kay bu ma fa amee benn pantere rek man kay bu ma toogee ci buntu kër gi rek lu tax loolu ci àdduna nangu woo ko fi àdduna nit ñi di ñafe di am ay ku nekk yow loolu ngay def fu nit ñi di mbëkkante pour am kër gu rafet yaa ngi fa fu nit ñi di mbëkkante pour am soxna su rafet yaa ngi fa fu nit ñi di mbëkkante pour yéeg oto bu rafet yaa ngi fa léegi nag alaaxira nga ni man kay man kay même buñ ma buñ ma mayee ci ci ci ci kii yi rek loolu loolu ku texee di moo koy wax ku texee di mooy wax loolu lan moo lan moo tax nit ñi dem Firdaws yow munoo dem lu tax nit ñi di dem Ilayin yow munoo dem lu tax nit ñi dem Daaru Salaam munoo dem te ay nit rek ñoo dem ay nit kese yu mel ne yow mais ñooñu dañoo góorgóorlu kon góorgóorlu rek la wallazina jaahadu fiina lanahdiyahum subulana ixwatal iman insha allah ñu arrêté fi ba samedi bii di ñëw ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu